salaamaaleykum Cheikh Talif ñëw ak ci mbirum sëriñ si wax ci bu làmb amee wala bu coupe d'Afrique amee wala coupe du monde amee wala di wax ay politique lii mooy xew diwee gagné diw yu mel noonu ak ñi naan dëpp ak duppeeg yu mel noonu di wax ne tey ñii di wax yenn penalty yi ba ne mbamb yépp um kenn ku ngeen ci gis Tektal TV nag um kenn ku ngeen ci gis tegtal pour muy leer ñooñu faneen lañ leen xam ci laneen lañ leen xam kon Tektal TV moom du ko ne fiy jaar te ku fi jaar tamit am na qualité buñ soxla ci sa waxin ak nooy waxe beneen bi tamit sëriñ si mënuñu fee mel melokaan boo xam nag bu dee ñii di wax nii ñoo tax Sénégal duñ jël ko kon war nañ seetaat suñu bopp parce que am na si ñoo xam ne que bu leen neexee logique la ñuy waxee maanaam attan nan ku leen mbamb attan nan lu ne saaru carte lay doon. Euh, bi gañ bi perte lay doon. Euh, bu dee yëpp attan nga ku la mbam attan nga lu ne nit ki xel nga am bu la neexee Real ak Juventus bu ñu dajee à peu près nga xam koy daje Real kuy dóor Tottenham ak Real bu ñu dajee ñoom bu ñu dajee Guingamp am amul sikk sàkkal xam nga ne Guingamp lan war a gañe kon bu dee Marseille ak Paris xam nga ne jamono ji Paris ko jekku bu dee Marseille ak Real euh, entraînement la ci ci ci ci Real comprendre noonu la mbir yi demee même ci làmb logique day am boo waxee sa logique nag mu am ñu ne yaa fi man amul ñu mbamb la fekk miin nga ku la mbamb loolu amul problème beneen bi may wax tamit gis nga sëriñ bi ne coupe du monde day ñëw mu ñëw man sëriñ boobu faj kenn nit mu wér moomu ko gënal sëriñ bi ne coupe du monde day ñëw mu ñëw faj soxlay nit moomu ko gënal nee naa leen sëriñ buy laalale asamaan beeg suuf si soxalu ma li ma amal solo mooy soxla mu wër soxla mu faju jàngoro mu wér lii daal laa soxla ci kuy ñëw ci tegtal nit nag mécanicien yëpp jubuñu jaaykat yëpp jubuñu menuisier yëpp jubuñu tëyër yëpp jubuñu footballkat yëpp jubuñu sëriñ si yëpp mënuñu jub te nit bu ne war ngaa amee mbokk nag say mbokk nga rus leen wala ñu weg la ba doo sañ a toog ci télé di wax lu la neex en tout cas Tektal TV moom ñun segg la ñuy def ba mu baax wane lu ne bañ nañ ko ba bu ñu def suñu émission sax ku mën a indi njëriñ réew mi sarax lan la ñuy def ak yu mel noonu ñu wax ko pour coupe bi ñëw xeet boobu la nekk jël nañ fi benn waay koo xam ne que bi mu ko jëlee Aris bi muy wax ne Sénégal ak Algérie dañuy dem final Sénégal ñàkk lu ma man teg naa ko pour lu mel noonu wax ba neexul mais tey da nga koy jàppe ne nee na woon Sénégal ak Madagascar demi-finale Madagascar ba amul Sénégal ak Madagascar boobu bi mu amul mais tey Algérie bi am na am na final tiro tiro bi la wax euh, fa la ñuy dem Sénégal ñàkk demuñu tiro bi Sénégal ñàkk mais comme da ngay gis que ne kii lii mu wax am na côté boo koy jàppee am na côté boo koy bàyyee nga jàpp ne nit noonu lay demee am na ko la koy leb 10 000 am na ku naan la maa ngi ñëw 15 heures 16 heures mu ñëw yooyu waxu doomu adama la mais lu mu ci mën di doon daal en tout cas ñun war na Tektal TV moom qualité 100 pour cent kon leen Tektal TV Sénégal ku bëgg sëriñ bu baax ak qualité ak lu am solo magazine divertissement sport culture lépp mu ngi ci biir Tektal TV koñ leen ko bu baax a baax incha allah Tektal TV Sénégal day collé Tektal TV simple noonu ngay bind noonu page Facebook bi Tektal TV l'officiel lépp luy qualité te am njëriñ ci la ni dox. sëriñ buy waxaw fit nag soxlawul la sëriñ buy waxee tàngal soxlawul la ñun leen soxla njariñ ak qualité jaajëf